tey dafa am ñu bëgg a fu ñu dëkkul du tubaab di ni politique mooy di sosal di ko wax lu amut ndax ndax bëgg xelu nit ñi ak bëgg jël ko présenter comme étant un traître daanaka qui ñoom dañuy wax waxu askan bi mi ñu

dama ne ñi ñetti lañu ñoo sos coalition Askan bi moy suma ma jox wayam moy Serigne ngi jël à témoin suma conseil politique ñi ni gis suma demande dafa ma renouveler par voie publique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 il ne peut pas parler au nom de son parti. Je suis désolé. Je suis désolé. nous, parti bobu parce que dañu c'est un kilifa. Il faut respecter les gens. Le Khalifa Sall mon mot parti Bobo parce que personne n'avait accès à ce parti à part Khalifa Ababakar Sall. Les autres moyens, sommes dans daanaka ci gàttal ñun dañ dem wuti dépense dem marché. togg mu saf-saf ñoo yekk leen leen toog leen ñu waxtaan yi ñoo toog mu am nag de et cetera ñeneen ñeneen ñi waaw man damay làcc rek waaw kuy luwe néeg fan lay jaar ba ak borom kër gi damay làcc parce que yenn ñi ñu commencé bëgg ñuroo yebel yeewi askan wi ngeen jégal ma ci kàddu yi du pulaayee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

nañ ko déggee noonu man naa ko wax te noonu laa ko waxee maa ngi leen